asalaamaaleykum waa Sénégal Ndiaye Dragon yow laay waxal nga ni danga gis Dragon te gisoo Dragon xam nga ni sax xel boo gisoon Dragon dangay jonni man mii nga tasanteel naan ay dama gis Dragon <laughs> ah danga mën a def buzz di jaay mën a kacab kacab di waa ah, yaa tux yaa ma Ndiaye gis naa Dragon gisoo dara man mii nga tasanteel ginnaaw lii laal la ñaaw lii